ذكره واللقام حياة أحمدا لا تتنا سرمدا ونبوا سوي الهدى عن قطيها li ñu ciy toftal leen rek la yow boo waxee ba pare sax ñooy suñuy wax waaye tubaarikàlla macha allah Ablaye dafay koo xam ni Touba gépp bàyyi nañu xel. te jàpp ko mu nekk nit ku baax nit ku yiw dama wax ne yoom yoom xel la dumi dumi xel la waaye mës a jaaxal gaañ Ablaye bi mu ñëwee ci biir géew bi dafa fexe ba marke en pratique nit ñi naw ko moom fulla am fayda am ngor am dignité li waajuram mi nekkoon ca loolu rek la ne muy bëgg lu baax ak jàpp lu baax lu baax lu mu seen fexee joti loolu ba téye ko fa tabaarkalla macha allah te nag la teewul Ablaye la teewul barki démb dafa mu benn mouvement bu naan négg ni ku taxaw sedd nekk Touba ni ma Abdou Salam boobu maa ngi Dakar ñu woo ma téléphone Abdou man leen naam ñu ma dafa am ku naan Ablaye ñu ngi dégg temps activité am te bëgg nañ bëgg nañ koo tëj ba man leen dégloo leen rek bis moo ñëwee tuuba danaa fexe ba ngeen teg ko ba te nag buntu nekk boo jël dugg dangay fexe ba ki taxaw ci buntu bi nga maslaat suñu bàyyi yàlla yàlla guddal saw fan yàlla yàlla bàyyi yàlla xeli bàyyi fii ci kër sëñ Dame mu eh, la ma kilifa yónni ay teranga muy ni ñaari nag ak tonu ca xam naa ni Cheikh Abdoulaye jëf na ci bis bi te ci biir jumaa ji yow la la la la sëñ Dame tudd maa ngi maa ngi maa ngi nuyu docteur Sylla mii Baye Abdoulaye nga ñëw mu dalal la yónni ay teranga Abdoulaye ne wéy ndax mooy bàyyi rasulillah alaaj njaga abdoulaye silla yàlla na ko yàlla taxaw abdoulaye ba ñu may wax ni ma am na lu muy xeex ngir pourcentage boobu des ci réew mi boobu jàpp moo ni woon dana dana dana def candidature am kilifa gu ma woo ni ma lépp na dellusiwaat ci réew mi ñu bañ a fobaat marché yooyu di ko génne ci biti wallaay def naa ci ñaari vidéo ñaar xam naa ni jàmbaar la xam naa ni nit ku baax la te mi ngi def baax yàlla ko yàlla dëgëral yàlla jàppale ko yàlla dimbali na ko saas njagam yi day sama mag di sama xarit di sama sox kon muy bis boo xamante ni bii sëñ tan ci boppam nag day wax ne nit seen doyu ci dana koy wax saa su ne ba tax na euh, ñun ñi nga xam ne dañoo nekk ci bi nampe nañ ci moom loo xamante ci gëm sëñ Touba wóoru sëñ tuuba yaakaar sëñ Touba boo xam ne moom mii ci wàllu boppam sax ñu nekk ak moom daf ñu cee nargal nga xamante ni bii moog sëñ dan duñu ñaar kenn lañu moom day wax sëñ dan ne ko man sëñ dan da ko naan man du ma sa sëriñ maa yow ñoo bokk bàyyi ndax ni la sëñ doon def moo tax sëñ docteur si la moom it amul sago ci sëñ Kan waaye nag sëñ Kan war na ko ci boppam loo xamante ni bii moom ci boppam nee na ko nat tëb liwu ma ni ba ma yàggee jaxasoo yàgg na waaye nag ku mel ne yow moom yombul ma jaxasoo kon tey jii bis la boo xamante ni bii niñ koy waxee bisu sant la bisu jaamu yàlla la bisu ñaan la tey jii nag ñu ñaan yàlla lépp lu may ñaan tey dangaa ñëwoon siyaare sa sëriñ sa xarit muy seen dan mu doon ubbi ak jumaa tey tey bi nga ñëwee lan nga yëg fii ci li nga xam moom moo di dëkk bi ah li ma jéegi de xanaa kontaante rek ak mbégte di sant yàlla di julli ci yonant bi sant sëriñ Tuubaa bu baax di sant sëñ Abdoulaye sëñ dan nag moom lu bari dañoo boole ndax waajuram ak sama waajur la woon ma ñëw mu feddali ko xam ko jàpp ma tette ma uuf ma ñu ma dimbali kon nag du ma mën lu ma jéem ma fay gor bi xam naa fay ko na jafe waaye sëñ daan moom ñaan naa yàlla lu mu ne ma na ci fu mu ne ma ne xam naa ni jàppe na ma ni ma sëñ Abdoulaye jàppe woon waaye jërë mu sedd kon nag maa ngi sant yàlla jumaa ji ñu julli képp ku fi julli lam ca ñaan yàlla na ko yàlla nangu di ko sant nag bu baax di kontaan lool di kontaan sama njaboot yëpp gis naa ni ma jàppee gis naa ni mu jàppee Abdoulaye Sylla ni mu jàppee ni mu jàppee sama njaboot yàlla na ma yàlla dimbale ma mën koo fay ci barke sëñ Abdoulaye ci barke sëñ Abdoulaye ci barke sëñ Abdoulaye docteur Sylla bi mu ñëwee nga xam ne ànd ak mbooloo lu ne mu def fi moom it kóllëre rek suñu diggante ak njabootam ak sama diggante ak njabootam bi Abdoulaye Sylla ñun jur ñun ñëpp ku ci nekk bàyyi gisee itti ñëw taxaw fi ànd ak man ci bis bi kon nag sant rek la ñuy def sant koo xam ne am na tàmbali waaye am tudd di ñaanal ñëpp nag ci barkeb Sëriñ Tuuba képp ku fi teew yàlla faj sa yaay di ñaan itam nag lu mu jógee fii bu àgg ci kër gi def xeewal yi rek bu ko defee bu rafet ku mu neex nga dem ci loolu rek ma lay sàkk bu ko yàlla faj daal yëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah. amiin. أنزلا ذكرا عليم هي أنزلا هدى لزيد تعدني أكرم بذلك الكتاب في هداه والصواب فيه القطواب والجواب من ربنا ذي القدام هو الشفاء من كل داء لمن عليه اعتمد ومن عليه